thank you mitin bu mag la amal ci Mbàkke mboolo mu takku bàyyeekoo fu nekk ñëw nag assisté ndaje bii moom Moustapha Diop ñu gën ko xam ci alalu askan wi ni ko ay jogañaaleem di woowee doon it njiitu coalition gox yu bees yi nga xamante ni ay jeunes cadres ñoo ko jiite fii nag ci Mbàkke jàpp na ni ñaari leader yi nga xamante ni mooy le maire sortant Abdou Mbàkke Ndaw ak Galaba tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar directeur SOGIP ñoom seen taxawaay rafetul ginnaaw bi mu nemmeekoo ni ci ay kàddoom li ñuy xaar ci ñoom mooy programme ni mu ko waxee sax nag parlons programme et laissons la layam layam yi ci ay kàddoom ba tey moom Moustapha Diop gis na ni dàggasant bi ñu nekkee lañu war a teg si suuf te nag sax Mbàkke da leen war a sanctionné ba tey Moustapha Diop yëkkati kàddu yooyu si meeting bii mu doon amal. ma romb ñaar ñoo xam ne sa fait 2014 leen fi ay jeunes kenn ki ay jeunes porté woon ko kenn xamu ko woon ñu fekk ko benn bureau bu ndaw ministère de la santé porté ko di ko jàppal di ko taxaw ba président Macky intégré ko dé génn ko nekkoon jox keneen ki population Mbacké def erreur fal ko mu symbolise ñaar kenn ki moo symbolise la déception mooy ki fi nekkoon keneen ki moo symbolise illusion la illusion li ñi dañ yaakaaroon ne am nay compétence am na xarañte am na lu mën mais tekkati zéro ñaar ñooñu nag laa romb ñaar ñooñu laa romb ñuy xëccoo di attaqué wante di xassante ci ay ambulance ci bilan ak langam sangam ma jàpp ne man bu la ay nit dénkee seen espoir pendant lu tollu juróom-ñetti at kenn mun a joxoñ dara loo fi def loo xam te bi bii wàññi na souffrance population yi nga taxaw di jiiñante kii naan may naa bërki dem ambulance kii ne ambulance moo may woon ñetti at ci ginnaaw tegoon ko ci loxo sëñ Alaaji Baara moo gën a baax sa bos loolu population Mbàkke dañ leen a yàpp on doit sanctionner ces gens là on doit les sanctionner waratu leen permettre sax ñuy reer ñuy ñuy ay meeting di nax nit ñi parce que li ñu wax léegi ay naxare kon ma falee yow ñu fal la pendant huit ans nga ne bon ma falee fexe nañ ba ma doon ministre fexe nañ ba ma mais c'est ça la dañ leen war a sanctionner fu ñu jaar dañ leen war a dellu ne leen dem leen tëri waaw loolu mooy dëgg gis nga man soo ma nekkuloon candidat su yàlla dogal a nekk wallaay ñoom ñaar dina même ñi nga xam ne c'est les nouveaux candidats nga xam ne sax dañuy novice en politique moo votel kenn si ñoom mais je vais pas voter pour ces deux là parce que vraiment ils nous pompent l'air avec des attaques inutiles ñun nag attaque ñu bokkuñ ci loolu dañu ne nañu ci olof ci français waxoon naa ko ne nañ parlons programme et laissons la layaam layaami nañu wax ci programme lan la ñu proposé waa Mbacké ci éducation santé environnement cadre de vie dellu siwaat na nag si nguur gi nga xamante ni tamit tegul benn jéego ngir soqali Mbàkke yi jàpp na ni amul benn infrastructure lu dul sax nag ñoom bi ñu nekkee étudiant ñoo xeexoon ngir am lycée bii di lycée de Mbàkke yi ci fin 2021 jëm 2022 mu nekk date bu am importance ci vie wu Mbàkke parce que damay faral di wax ci rencontre yi may dem ne 2000 l'an 2000 bi ab le président di jël le pouvoir ak tey fii ñu toog kenn def fi pose première pierre à ah, budul lycée de Mbacké ba nga xam ne ay étudiants boobu man j'étais étudiant ñoo xeex di grève car cortège Ablaye pour que Ablaye puisse déclarer que on va on va construire le lycée de Mbacké. budul loolu budul loolu deux mille ba deux mille vingt et un aucune inauguration ne s'est réalisée dans la commune de Mbacké kon ñu ngi jëm deux mille vingt deux. benn investissement duggul bi jolli woon na ci bile meeting ndaxte fépp la mbooloo mi jóge woon ñëw nag fas yéene ànd ak leader teg ko ci bopp mairie bu Mbàkke moom mustafaa Diop.